asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah sama gars yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen béggee dañ jox seen wàccuwaay c'est un plaisir de retrouver sur ce live euh, du jour xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi fas yéene waxtaan ak lu am solo ak mbokk amateurs yi. comme ñu ko tàmbali defee rek di leen baalu ak encore une fois ci koor gi te di leen wax ngeen gën a góorgóorlu rek ci fukki fan ñu mujj yi ñu gën a góorgóorlu ñu ñëpp ensemble ñu gën a góorgóorlu Mohamed Naar maa ngi leen yuru muy xamante ne mu ngi foofu ci États-Unis macha allah nekk naaru làmb ji ñu ngi koy nuyu bu baax gis naa ko mu dugg si moom macha allah du raté benn live mais ñu ngi nuyu bu baax itam suñu jigéen Mariam xamante ne moom itam ku bëgg làmb la macha allah c'est une femme boo xamante ne. elle assiste à toutes à tous les lives de même que ñoom Yacine ak ñeneen ñeneen ku lim juum mais itam du nuyu itam Makumba Niass xamante ne moo nekk foofu ci Gambie euh, Makumba Niass moo nekk foofu ci euh, euh, Gambie ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ki nga xamante ne itam moom mooy promoteurs yi. promoteurs yi ñu ngi leen nuyu bu baax léegi promoteurs parce que ce sont les eux les euh, yi ñoom ñooy bailleurs yi baal leen ma gars yi maa ngi bind titre bi quoi moo tax xam nga rek instant yi bopp bi xam nga xel mënul jàpp ñaar quoi titre bi yéen a koy gisee yéen koy gisandoo titre bi yéen a koy gisandoo li nga xamante ne moom muy titre ci commentaire ci live donc le commentaire mooy Modou Lo vs balde am na date Ama Baldé vs Gris aussi am na date. loolu leen leen di ñëkk wax loolu leen leen di nuyoo c'est la grosse bombe ki a éclaté aujourd'hui donc tey loolu la ñu fas yéene waxtaanee tey sama gars yi mooy gannaaw bu coow li bariwee gannaaw bu pënd gi wuree un feuilleton qui dure depuis plus de je peux dire trois mois depuis la blessure de amaa Baldé ci la coow judduwee diggante amaa Baldé Modou Lo Modou Lo Boy Niang taxaw ci diggante bi parce que mu ngi taxawoon suma juumul au mois de janvier ou février Modou Lo Boy Niang donc diggante janvier février mars avril ñu dugg si trois quatre mois coow ngi ci làmb ji coow li nag tey dañ leen di fas yéene indil ci ay leeral yu am solo après nag ñu jël amateurs yi ñu waxtaan ci li may wax ni nag attention. xam ngeen ni dëgg la dëgg la euh, damay liggéey ak CNG ci collaboration yi def ci cadre audiovisuel mais li may leen di jox ci information bii c'est buzz ki nga xamante ne taskatu xabaar la bii ut ci ay sources ñëw di leen jox information yooyu noonu ci sources yi nga xam mu ngi koy jëlee feneen fu dul CNG parce que man ku ne xam nañ ci sama liggéey j'essaie d'être assez professionnel mooy li nga xamante ne tey sama collaboration CNG moom moo ko moom laa ko jëlee ci surtout CNG wala jëm mais lii jëm ci Lutte TV li ma foot la ci ay xabaar yu jóge feneen c'est pas encore officiel mais ñu leen di xamal ni CNG def na réunion gannaaw bu CNG defee réunion CNG waxtaan nañu seen biir bu ñu waxtaanee seen biir gannaaw bu Ama Baldé déposé certificat de guérison am CNG jàppal na date Ama Baldé ak Gris Bordeaux jox promoteur bi le mois de juillet. date exact bi muy nekk le 9 juillet 9 juillet la jox ki nga xamante ni moom mooy Ibrahima Diop mais proposition la maa ngi ñëw ci Ama Baldé Modou Lo bi ñu naan ni am na date mais proposition la CNG defal Ibrahima Diop proposition boobu moom mooy Ibrahima Diop 9 juillet lañ xalaat ni war nga ci mun tëgg Ama Baldé Gris Bordeaux est-ce que d'accord nga est que ñaari mbër yi pare nañu ok ñëw leen. bu ngeen ñëwee toog autour d'une table ñu mun a xaatim officialiser loolu mais c'est pas encore officiel mais comme ni ñuy wax nii rek lii suñu ay sources la yu ñu foog te sources yi ñu ngi ko assez rassemblé ci ci ci quatre sources fu mu toll nii quatre sources yooyu yëpp confirmé nañ ñu loolu fu mu toll nii ni ko Ama Baldé Gris Bordeaux moom fu mu toll nii date bi mot na pour le mois de juillet leer na nañ carte gi leer na Ama Baldé Gris Bordeaux dina bëri au mois de juillet maintenant dafa amoon beneen coow boo xamante ni juddoon na xamante ni ko coow boobu sax mun naa ne ci sama micro la tàmmali woon ah, nga xamante ne ginnaaw bu amaa Baldé blessé ñu ne amaa Baldé day toog lu yàgg du wér ñu ne Modou Lo itam wér na mënul xaar maanaam seeti woon le président Bira seen président du CNG président Bira seen waxoon ay kàddu yu am solo lan la président Bira waxoon président Bira wax ni que mut loo kat mun na jël avance ak beneen promoteur parce que duñ ko téye lu yàgg mun na dem bëril keneen chose qui a été faite Modou Lo jëlal avance Boy Niang mais combat bi Gaston Production jotu ko régulariser pour quelle raison xamuñu peut-être Gaston Production dafa bëggoon jël temps ci lu ñu dégg régulariser combat bi pour déwén. donc gannaaw loolu nag ci diggante bi ñu ne Ama Baldé ngi waaj a wér ci diggante bi ñu ne coowal justice bu amoon ci combat Ama Baldé Gris Ama Baldé ak Modou Lo ñuy laam-laamee ndax komba ba dina am ak du am loolu yëpp jeex ci diggante ba. William Mohamed Nicolai di promoteur itam renouveler licence am wane ni que pare na pour tëgg coow li nag gën a bari même bu nekkee tey dégguñu benn yoon William Mohamed Nicolai mu wax ci même bu fekkee itam dégguñu benn yoon Luc Nicolai mu wax ci mais xam nañ ni que tey la structure Nicolai business Luc Nicolai and co ñoom ñëpp ils étaient ils étaient très très très. motivés ils étaient très très euh, ñu ngi koy waxatee dévoués à organiser leur combat Modou Lô Ama Baldé comme étant le combat royal bëgguñu woon tey Modou Lô booy Niang njëkk a bëre parce que Modou Lô Boy Niang bu ñu njëkkee bëri ñoom xamuñu le résultat du combat mais Modou Lô Ama Baldé combat euh, royal tey xam ne ni lu intéressé woon la Luc Nicolaï ak structure am léegi nag qu'est-ce qui s'est passé ñu déggaat beneen discours jóge woon ci euh, euh, président du CNG xamal ni que tey Ama Baldé ak Modou Lo ñooy njëkk a bëre parce que Modou Lo combat am ñëwagul au niveau CNG dégg guñ ko fenn. loolu créé nag coow lu bari ci làmb ñu ciy waxaat ne dafa am ñaari leneen ak leneen affaire dam dégg ci ku nekk wax mais CNG dafa mel ni encore dafa dëggal loolu mu wax. parce que fu mu toll nii CNG sama gars yi déglu leen bu baax CNG joxe na date. pour Ama balde ak Modou gannaaw bu Ama Baldé ak Gris Bordeaux sëggee le juillet Ama balde ak Modou ñu ngi war a sëgg incha allahu rabbi au mois d'octobre Ama Baldé Gris Bordeaux juillet août septembre Ama Baldé euh, août septembre octobre Ama Baldé Modou Lo sëgg mais lu ñu leen waxoon léegi léegi ci Gris Bordeaux Ama Baldé mooy appliqué waat ci Ama Baldé Modou Lô mooy Gris Bordeaux Ama Baldé CNG dafa proposé promoteur bi le 9 juillet mais Ama Baldé Modou Lô itam CNG dafay proposé octobre bi duñ leen wax date date exacte bi mais CNG dafa proposé octobre bi William Mohamed Nicolay comme CNG proposé na octobre William Mohamed Nicolay mais li ñu leen wax nii ce n'est pas ci suñu ay sources lañ ko fooyee recoupé gauche droite gauche droite mais lettre bi bindaguñ ko pour yónnee ko promoteurs yi ce n'est pas encore mais lu ñuy togg la lettre yi demagul ci promoteurs yi lettre bi demagul ci mbër yi mais gannaaw bu CNG proposé octobre structure Nicolay business muy William Mohamed Nicolay ñoom dañu war a ñëw toog wax ni que est-ce que date boobu arrangé na leen war a arrangé mais jàpp leen ni que Ibrahima Diop moom 9 juillet lañ koy proposé William Nicolai ñu ngi ko proposé octobre pour Modou Lo Ama Baldé donc Modou Lo Ama ñu ngi war a sëgg au mois d' octobre sous réserve que structure Nicolai business d' accord ci loolu ak CNG sinon mën na nekk sensiblement moins ou plus mais jàpp leen ci aléa boobu noonu Ama Baldé ak Modou war nañu sëgg. kon mu mel ni CNG kon dafa dëggal ay waxam kon bu CNG jàppalee date fu mu toll ni Ama Baldé Modou Lo kon dafay mel nii day tekki ni kon fu mu toll nii kenn mënatul régulariser combat Modou Lo ak Boy ñaar loolu lay niru kon dafa mel ni CNG décidé na ak tene ni que Modou Lo Ama Baldé ñooy ñëkk a bëri parce que CNG jàppal na date Modou Lo Ama Baldé ci suñu ay sources ci lu officiel agul attention maa ngi wax nag président Bira Sène na ngeen ma baal euh, waaye rôlu taskatu xabaar moo nekk tamit di ut ay information yu siwagul des fois mu koy tas ba pare di leeral ni ko c'est pas encore officiel du këyit bu génn du bës bu toog di leen wax këyit bu CNG génn mais li nga xamante ne ñu ngi koy waxtaane la lu CNG def réunion la lu lu CNG def réunion du sax lu fuité parce que CNG def na ci réunion ba commencé ci waxtaan ak yenn promoteurs yi ak yenn managers yi pour informer leen ci cadre boobu noonu tey jii ci gàttal Ama Baldé Modou Lo jàppal na ko date pour le mois d'octobre léegi nag ñu ngi xaar Luc Nicolaï William Nicolaï ñu valide loolu mais bu ñu ko valider c'est le bien de la lutte kon fu mu toll nii fii ak janvier février ñëppay kontaan parce que Makan li tax régulariser gul woon Modou Lo Boy ba léegi dafa ne woon day jël temps am day liggéey combat am ba mu baax donc nañ imaginer. Ibrahima Diop tëgg 9 juillet Ama Baldé Gris Bordeaux octobre wala date bu Luc Nicolaï di tëgg à peu près je sais pas octobre novembre je sais pas en tout cas décembre xaw ma mais mu tëgg foofu par exemple si si octobre bu ko CNG wax mooy Ama Baldé bu bëree 9 juillet day toog juillet bi dina ci toog genn wàll bi toog septembre juillet toog août toog septembre dugg si octobre mooy day am 3 mois la Ama Baldé di am. de préparation pour Modou Lo bu Ama Baldé pareeg Modou Lo Modou boobaa sax est-ce que du bëri janvier est-ce que boobaa Modou ak Boy ñaar du ñu bëri janvier wala février parce que élection yi kenn la élection yi su ma jumul c'est le 24 mais en période d'élection moom làmb mun ci am en période de campagne campagne yi ñaata mois la avant élection yi. 15 jours avant élection yi donc campagne day commencer ay booru le février donc tey même bu Luc Nicolaï tëggee octobre. 15 jours après benn jour repos. 15 jours benn jour repos. après élection après élection premier tour kon 24 février ah. kon bu fekkee campagne day commencé kon tey le 9 février wala le 8 février kon Makan pourquoi pas mu tëgg le premier février wala le 2 wala le 3 février. kon boobaa noonu nag Makan dina am par exemple bu fekkee Luc octobre la tëgg Makan dina am novembre décembre janvier moom tamit dina am 3 mois mais bu fekkee Luc novembre la tëgg Makan dina am euh, moitié novembre am décembre am janvier am moitié février kon 3 mois ba léegi même 2 mois sax préparation combat doy na ci même Luc bu tëggee décembre mais lépp nag fu mu toll nii jàppaleen leen ni que jàpp ni que donc gars yi neen campagne c'est 20 jours yooyu yaa ngi may rey ah. yaa neen campagne vingt jours la ñii naan ma ay vingt cinq ñii naan ma lële en tout cas loolu man du ma spécialiste pour xam ay campagne ñaata temps la mais jàpp leen ni daal fu mu toll nii nañu wax ni que Ibrahima Diop am na 9 juillet Luc Nicolaï am na octobre Makan Meng moo war a fu mu toll nii nag xaar yooyu tas pour mun a régulariser parce que Makan dafa mel ni mënagul régulariser yooyu te combat yi fu mu toll nii leeragul mais léegi nag est-ce que Ibrahima Diop dina tëgg 9 juillet loolu mooy wax ji. est-ce que Ibrahima Diop pare na pour tëgg 9 juillet loolu Ibrahima Diop moo ko war a leeral est-ce que ko Nicolaï pare na pour tëgg octobre loolu ñoom ñoo ko war a leeral ndax promoteur itam ñun mënuñ toog fi xamuñu ñoom lan la ñuy waxtaan ak ñun yenn info yi la ñu am rek ñëw teg mais quelle sera la date finale loolu mu ngi war a génn ci benn réunion diggante promoteurs yi ak CNG mbokk yi loolu lañu ñu bëggoon tey ñu waxtaanee mais dafa mel ni finalement carte gi leer na lii moom ay sources yu wóor la ni que Modou Lo Ama am na date. Ama Baldé Gris Bordeaux am na dat ñaari combat yëpp am na date fu mu toll nii kon dafa mel ni Bira Sène ak président mu nekk président CNG ñoom confirmé nañu confirmé nañu li nga xamante ni moom leen doon wax ni que Ama Baldé Modou Lô lay ñëkk a bëreel parce que ñu sax Ama Baldé Gris Bordeaux bëri ba pare pour ñu jàpp date dañu jàppal date Ama Baldé Modou Lô avant sax Ama Baldé di bëri Gris Bordeaux loolu nag lan lañ ci war a jàngat il faut ñu waxtaanee ko yooyu yëpp bëggoon naa am waa Gaston production ñu waxtaanee loolu. nan lañ ko gisee bëggoon naa am waa Luc Nicolaï and Co Nicolaï business ñu waxtaanee ñoom nan lañ ko gisee bëggoon naa am Ibrahima Diop Kajoor production ñu waxtaanee ko nan lañ ko gisee ah donc euh, loolu moom moo ci moom moo ci am suma juumul ah gars yi bëgg nañ dugg ci live bi pour ñu mun ko waxtaanee ah macha allah mais maa leen di bëgg bu baax a baax di di kontaan ci yéen bu baax. Buzz maa ngi lay siyaar. maa ngi lay maa ngi lay delloo siyaar Cheikh bi na def. ba yaa ngi ci jàmm maa ngi sant yàlla bu baax a baax mon mi naka mu yaa ngi si jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax a baax alhamdulilah. macha allah naka nga gisee waxtaan bi nga xamante ne am nañ ko information yi leen jox léegi léegi lan moo ci sa xalaat ak sa jàngat. Euh, information bi wax dëgg yàlla kontaan nañ trop parce que Modou Lo Ama Baldé bi yàgg na boo xamante ni xam nga maanaam. lii mooy yoon quoi mooy yoon. Mm-hmm. waa loolu moom mooy yoon wax dëgg yàlla Ama Baldé moom su doon maay lig Nicolas damay dam maanaam combat bi si date biñ ko jàpp baax na day tax Modou loo Ama Baldé dinañ mën a bëre Ama Baldé Gris dinañ mën a bëre Modou Lo Boy Niang mën a bëre comme ni nga ko waxee ci départ bi rek. Mm-hmm. waaw parce que Modou Lo Boy dinañ mën a bëre ci début janvier bi. Mm-hmm. Modou Lo Ama Baldé dinañ mën a bëre ci octobre bi. Ama Baldé Gris Bordeaux dinañ mën a bëri ci mois de juillet bi aussi. Mm-hmm. bu mm-hmm. boobaa ku ci nekk ci ñoom ñooñu ñëpp xam nga di nga mën a uti jiwaat yeneen combat mën a bëri mm-hmm. ndax coow yëpp mën a jeex. parce que yéen sonn ngeen ci trop chaque jour ci live bi xam nga ku ci nekk di wax. ci live bi. waaw franchement. mais mais mais yow sa jàngat itam est-ce que Gaston production itam tey. Euh, lii xawul metti ci ñoom itam tey lan la ñu war a def comme réaction ñu war a taxawee par rapport parce que ñoom itam ci ci ci li ñu déggoon moo taxoon ñu yëkkati avance dem joxe ko waaw waaw loolu moom loolu moom dëgg la parce que man di wax a yow nii maa ngi dëgg ma biir parcelle bi Modou de soriwu ma de waaw loolu yëpp dëgg la mais li tax ñoom rek réalisé ko ci combat peut-être li ma yaakaar daal ci li ma yaakaar ne peut-être ñoom gisoon tamit Nicolas combat royal la bëgg la waaw. am na solo. waaw solo kontaan naa ci yow. waaw merci beaucoup Beuz jaajëf. jaajëf général. merci bismillah match yi match yi maa ngi lay nuyu di la ziar. waaye Beuz nuyu naa la nuyu naa la ziar naa la. wallaay sant yàlla bu baax a baax bu baax a baax. ban jàngat ngay def fu mu toll nii ci ci ci information yi date yi nga xamante ne jox nañ ko promoteur yi. voilà Buzz booy balaa may commencer. Mhm. Euh, je suis en Mauritanie donc euh, je vous suis euh, depuis le donc euh, dama di suivre bu baax a baax. Mhm. donc euh, fan laa bu baax amateur làmb donc. Mhm. voilà yéen a ngi def liggéey bu rafet macha allah macha allah. macha allah si à félicité voilà. jërëjëf jërëjëf maa leen gën a kontaan. jërëjëf maa a kontaan. sa jàngat voilà yaa ngi soog a dugg ci live sa jàngat ci situation bi. exactement sama jàngat bon pour moi c'est c'est c'était logique c'était logique que ce soit comme ça mu mel nii donc euh, gis naa ni nag wax bi bëri woon na trop mais pour moi CNG moo waroon tranché depuis longtemps. Mhm. et Gris Bordeaux Ama. Mhm. pour ñuy njëkk a bëre ñuy njëkk a pour moi c'est très logique. c'est très logique et la waroon demee tamit ensuite mm. Ama Baldé Modou Lô mm. donc combat bu ñuy xaar la mm. personnellement je suis fan de Modou Lô et combat boobu la gën a yàqamti sérieusement et pour moi c'est très logique que ce soit avant Boy Niang bo euh, Modou Lô donc euh, mais octobre aussi production moom est-ce que tey amul lu xaw a metti par rapport à cette situation wala mënaguñu wax dara parce que régulariser guñu mais tey CNG anticipé jox date Luc Nicolaï octobre ah ñu jox Euh, tey ci suñu ay sources encore c'est pas mais suñu ay sources ñooñu wax ni que octobre la Modou Lo ak Ama mm. Baldé war a sëgg sous réserve que promoteur bi validé ko ak euh, waa CNG tey loolu noonu tey lan moo xew ba ñu def loolu waaw pour moi euh, à mon avis parce que combat moo njëkk a taxaw combat boobu moo njëkk taxaw et l'autre combat lu ma lu ma lu ma déggoon quelque chose qui n'est pas régularisé ça veut dire CNG n'est pas au courant de ce combat là parce que lu ma lu ma dégg le combat euh, Boy Niang Modou Lo c'est pas mm. régularisé c'est-à-dire euh, euh, Gaston Production demuñu CNG pour combat mm. boobu donc mm. pour moi CNG warul loon wax depuis le début CNG warul wax ci combat boobu mm-hmm. parce que CNG n'est pas au courant ne doit pas être courant de ce combat là à mon avis donc warul wax gaa ci combat boobu lu régularisé boobu mënuñu joxe date mm-hmm. Mm-hmm. pour CNG bu ñu waxee Boy ñaam Modou Lo CNG dafa war a ne gaa moom xamul combat boobu pour ñoom CNG amul combat donc pour moi tout, ce qui est logique c'est euh, euh, chronologie bu nga wax mm. parce que Modou Lo blessé woon na ba mm-hmm. ba Ama jël beneen avance donc c'est mm-hmm. normal que Ama Gris Bordeaux njëkk a mm-hmm. et ensuite euh, euh, euh, Ama Baldé Modou Lo donc l'autre combat pour pour moi CNG ga warul wax ci beneen combat bi parce que CNG n'est pas au courant de ce combat là mm. à mon avis. kontaan naa ci yow Maxi nuyu ma waa Mourid baax ak yëpp yow xam naa tukulóor nga de ah? dinañ la fay dinañ non du ma tukulóor saraxule la en janvier j'étais en vacances entre parenthèses j'étais en vacances à Dakar gisoon naa la ci benn resto à côté de l'université bon tu étais occupé da nga xawoon jàpp. combat euh, combat c'était combat kii euh, euh, Ada Fass ak Zarko. donc j'ai vu que vous étiez en train de travailler sur ça donc j'ai pas voulu déranger. Ah. je voulais te faire un coucou mais c'était c'était dama demoon réeri c'était à l'heure du dîner je sais pas exactement je me rappelle pas très bien mais c'était à l'heure du dîner. donc je vous exactement waaw waaw. donc euh, c'était un plaisir Buzz. kontaan maa la gën a kontaan foofu kontaan naa bu ok à plus et eh, bonne chance ngi def liggéey bu am solo maraw maraw merci Ama Thiam Bakok merci la bon Ikeyta moom mu ngi nëbb kanam gi mais Ikeyta woon ñu sa kanam nëbb kanam xeewi naa loolu moom Fadam moo ñu ko fi wax ñëpp war a wane seen kanam non bàyyi nëbb kanam gi rek <laughs> non déjà nëbb kanam gi tax na dégguñu la bu baax sax instant yi ah yaa ngi dégg nii ah waaw waaw ma man li ma gis si làmb ji mooy euh, bon Boy Niang avant mu doon engagé wu si benn combat. yokkal kat waroon am dugg tuuti. ma ne Boy Niang balaa mu doon engagé wu si benn contrat. Mhm. dafa waroon am certitude que contrat bee ne am nañ ci lu leer. parce que mhm. munoo jël munoo jël benn combat te xamoo Modou Lo nu mu taxawee. du mhm. coup ce qui est préférable pour moi mooy CNG woo promoteur ñu toog. ñu def de telle sorte ñett combat ñu ko avant élection yi parce que après élection bul xam lu xew. bul xam mhm. situation dëkk bi quoi. Mhm. Mhm. bon pour man aussi bon y avait pas problème sur combat Boy ak Modou Lo dès lors que promoteur bi demul au niveau du CNG pour régul pour régulariser. kon dans la mesure où CNG il ne peut se prononcer que sur le combat Modou Lo Ama Baldé et Gris Bordeaux Modou Mm-hmm. Mm-hmm. dégg naa baax fi ngay waxee am na solo kontaan naa ci yow comme nangu wane kanam gi moom man moom ku wanewul kanam du ma débat ak moom. waaw d'accord y a pas de <laughs> mais kontaan naa ci yow baax mon frère Keita. waaw ñoo far buzz. am na solo am na solo merci beaucoup kooku i Keita la xaw ma est du sama tur Ibrahima kon ati ñu continuer ak demande yi rek macha allah ñu continuer ak demande yi ah euh, ñu continuer ak demande yi donc loolu moom moo ruus tey ci xibaar yi. Modou Lo Ama Baldé am na date pour le mois de octobre euh, sous réserve que promoteur bi validé ko ak CNG waaye itam euh, ak Ama Baldé am na date au niveau du CNG pour le mois de juillet sous réserve que promoteur validé ko ak CNG Manu Dioum le grand Mansour maa ngi lay nuyu di la ziar. Ibrahima Faye ñu ngi lay ziar di ziar gars yi maa si jàmm namu naa la. mon frère naka waa Italie. waaw ñu fi ñu fi di meññee naka liggéey bi. non sant baax mais Mansour la ji yëngootu na euh, coow li nga xam ne na noo koy jàngatee waaw man moom pour déggoo maa naan pour la première fois ma saluer décision waa CNG quoi tey moom lii la ñuy xaar si ñoom quoi te ndaxte bu ngeen defee ngeen nekk ay njiit rek décision yi rek la ñu mën a xaar comme comme de combat Modou Lo ak euh, Boy Niang kon régulariser wu ko kon combat boobu CNG reconnaître ko mm-hmm. comme lu gars wax rek waaw combat bu ñu régulariser mooy Modou Ama Baldé te combat boobu noonu vu que ni léegi ñaari mbër yëpp dugal nañu seen kii seen certificat a guérison kon te pour te Luc Nicolaï bu mu demee justice jox nañ ko euh, procès mu gagné ko kon léegi rien teewul combat bi daal pour mu mën a am waaw léegi daal loolu daal laa mun laa si am ñu départ déparger leen hmm. ñu bëre xam nga loolu sax pour man sax source de apaisement la ci tension bu amoon Pikine quoi hmm. mooy njëkk a bëree kii bëreewul xam nga. Hmm. bu ko defee sax loolu genre apaisement lay doon booy ñaar relation pour man tamit mag grand makan loolu tamit da war a jël ak philosophie xam ni. Hmm. tamit waaw lu logique la daal loolu daal laa si laa ci. mais nan ngay jàngatee Ama Baldé bi génnoon Gris Bordeaux laay bëreel Modou Lo ne booy ñaar na dem bëri Modou Lo euh, booy ñaar Modou Lo maa ngi ñaanal ndam affaire yi wëlbatiku fu mu toll nii loolu nay jàngatee communication. ma loolu pour man waxi mbër la rek. loolu waxu mbër la rek Ama Baldé danañ danañ danañ signaler góos rek mais xam ne doraat doraat doraat la bëgg a dem. Mm. waxi mbër la rek. Ama Baldé moom boo tijjee ci njëkk a bëri Lo. Ama Ama Baldé xamoon na lépp xamoon na lépp loolu yëpp ay waxi mbër rek mais xamoon ne de mooy njëkk a bëri ak Modou Lo. Hmm? xam na lépp dara dara réeru ko ci. ay ngaaka de yow bës. mbër yi duñu ay ngaaka de nelawuñ de. moom mu xam ni mooy ñëkk bëri Modou Lo pare mu ñëw di pëtëxal Boy Niang kon ko loolu tam mu apaiser ko ne booy Boy Niang lépp wax ji waa Pikine di tàngal mu seral wax jeeg yëpp ne ko Boy Niang bu bëri ak Modou Lo yàlla na ko ñëkk daan lépp Pikine loolu yëpp ay texel la mais loolu yëpp dafa bëggoon rek apaiser eh. gaa yi xam na eh. ni ñuy def de gaa yi xam ñuy def de gaa yi réeruñu méthode bës bilaahi mais yéeme na mais yow fu mu toll nii gisoo benn stratégie bu Gaston Production war a mun def fu mu toll nii pour renverser la tendance. waaw non man de stratégie bu ma mën a gis bu makaan mën a def mooy jëlee affaire bi ak philosophie rek toog xaar xam nga. Hmm. ba ñu combat yooyu jàll ba ñu a après ñu xoolaat te ma loolu laa gis de te loolu rek la war a mën a def nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw ndax boobu ba léegi ñu ngi déroulé ay combat di ko réussir vraiment seen liggéey rafet na ñoom ñu ngi def job bu nice. Mm-hmm. xam nga di ñaan yàlla xam nga yàlla gën a continuer loolu ñu dem mais tamit mu may ñeneen ñi xam nga. ñu mën a intégré wu si. bu fekkee Modou Lo dafa daan Ama Baldé bu ñu bëriwee. Makan dafay mm. am. gantim combat Modou Lo Boy Niang mais mu bu Ama Baldé daanee Modou Lo ce que Modou Lo Boy Niang du nekk risque ci Makan. non du du du nekkul benn risque. waaw Modou Modou Lo bu daanee bu daanee Boy Niang waaw bu daanee Ama Baldé te yàlla demee noonu sax yaa ngi dégg bu daanee Ama Baldé léegi Boy Niang foofu tamit beneen atu la pour mun a Ama Baldé revanche ba pare mun a jëlaale couronne bu fekkee tamit euh, Ama Baldé dafa daan Modou Mhm. boo ñaate mu naan na bëriwaat xam nga loolu lépp rek ñoom ñëpp ñu jël seen revanche ak seen na la ndax lu mu dese Pikine la ñoom ñoom ñaa ñëpp kontaan a ñoom ñaa ñëpp ñu waaw fii la raw fii la raw di bég naa ci bu baax a baax di rafetlu waa liggéey bi yëpp di ziaraat gaa yëpp nag jërëjëf jërëjëf alaaji Fadam mu sell ni tamit ñu ngi koy xaar léegi-léegi moom xam nga moom gannaaw bu gaa yi waxee ñaan faatiyal ayatul kursi yu ah alam nasra juróom-ñeenti yàlla tiif ah falaxeek naas alaaji fadam mooy salaatul fatiha mooy ñëw def salaatul fatiha bi alaaji fadam léegi léegi léegi léegi ñu ngi ñëw ci moom léegi léegi léegi yàggul dara dañuy jël benn ñaari amateur rek après ñu ñëw alaaji fadam tëj affaire bi parce que fadam tamit daf ñu war a wax leer ci kaa